talaata fukki fan ak ñaar ci weeru mars centre formation Lamp Fall Couture doon amal ab bis ngir jagleel ko élèves yi nga xam ni ñoom ñooy jàng ñaw ci bii la centre ñuy amal ab exposition ngir wone li nga xam ni jot nañu ko jàng ci at mi ki nga xam ne nag moom mooy formatrice bi Maman Ndoye yëkkati na ay kaddu ngir leeral sababu biila la bis bis bi li exposition la exposition ça dire porte ouverte porte ouverte mooy li ñu jàng ci année bi ndax parce que ay nouveaux élèves rek laa yor ñoom ñëpp ay première année lañ léegi balaa ñoo dem deuxième année war nañoo wan seen parents yi lan leen jàng lan leen liggéey ci année bi ba xam ñoom li ñuy def ñi ngi liggéey wala liggéey ndax kuy def dara da nga war a wane ni li ngay def mi ngi avancé wala avancé wul léegi comme que première année la te dañoo war dem deuxième année war nañoo wane ñoom liñ seen xarañte fi ñu yem ak li ñu war a def moo tax ma ne pourquoi pas ñu de duñ def porte ouverte invité seen parents d'élèves invité xarit yeeg am du jàmm yi su ko defee ñëpp ñu dajee bu ko defee visite lay doon rek ñoom ñu xool visiter xam ba xam élève ñi ngi jàng wala jànguñu seen création fu mu nekk du matière u ñaw kase tamit yeneen matières yu ne ndax dañuy defar ay bu ngeen fayee ngeen ko gis ay dra dañuy cuub matière bu nekk dañ koy def parce que ñaw moom ñoo yam aar la lépp aar la dañuy def ay drap dañuy def porte-clés dañuy defar ay dàll dañuy defar ay saak yooyu yëpp après di ngeen ko gis affaire bi moom du ñaw kase Lamfal Couture moom lépp lay lépp lay liggéey lépp loo xamante ne matière aar la rek dañ koy def ma ne pourquoi pas duñ def suñ porte ouverte bu ko defee pendant délai bi ñëw ñu visiter xool seen xalante ak li ñu mën ak li ñu mën. Mama Ndoye doon jigéen doon ndaw waaye xam le ni ci centre bi danañu fi amal ay formation yu bari te wuute waaye tamit mu dellu di ñaax ci élève am yooyu ci ak góorgóorlu. ne jigéen baax na góor baax na pare képp koo xamante ne yar nga ci boo xamante ne liggéey rek nga xam. il faut que boo màggee rek war ngaa wane wane sa bopp te di ba may nekk xale bu tuuti affaire de création affaire de art dafa nekk ci man moo tax daanaka samay xarit xaaj bi yëpp dañoo ubbi atelier mais man centre bi moom gën a parce que li ma bëgg di def yëpp ci centre bi ko mën a jaaree di def parce que bu dee atelier ñaw jox kii bi mu ñaw la man nag moo tax centre dama koo bëgg parce affaire art dafa nekk ci man lépp loo xamante ne artisanal la rek dama koo bëgg loolu ma dugal pour ma ubbi centre formation bi may jàngalee fii dañoo am formation normale am accéléré formation normale moom centre yëpp la ba bitim réew tamit euh, centre yëpp dañuy def travail à la main rabu broderie ak lépp loo xamante ne xeetu kii la rek dañ koy def ak ñaw beeg couture beeg styliste bi yëpp dañ koy def lépp dañ koy jàng ñoo yem formation ñii dañuy def accéléré ñuy def normal normal bi moom mooy dañuy def travail à la main rek damaa jaar ci ñoom fi ñu jaar élève laa woon comme ñoom dama daan gontu ji di jàngi moo metti torop tamit ndax ñoom ba kon ñoom li ma leen di wax gëm-gëm la affaire bi gëm-gëm la rek boo gëmee sa bopp rek lu ne war nga ko mën a am ci àddina en plus bu ñu tayal tayal baaxul ci élève tappale baaxul ci élève parce que lépp après la bu ngeen demee ba màgg ñii sëyi ñii am jëkkër ci boobaa ngeen di xam ne temps bi ngeen am juru ngeen koy perdre parce que lii temps bu gàtt la surtout temps wu ñoo xam ne seen borom kër du leen may ñu liggéey am ñoo xam ne seen goro ñoo leen ko doon may kon temps bii ñu nekk nii da ngeen ciy profitoo au moins bu ngeen amul loolu mën a yor seen i machine dugal seen néeg di ñawal seen bopp di ñawal seen i doom parce que fii lépp lañ fiy jàngale lañu fiy jàngale yére góor dañuy jàngale yére jigéen bàyyiwuñu dara. ñoom élèves yi di ñu xamal li centre bi li ñu fi gis lépp njariñ la waaye tamit di sant ak di ñaanal seen formatrice bi di Mama Ndoye. centre bi moom fi laa nekk di fi liggéeyee mu nekk centre boo xam ne si centre bu baax ki ñu nekk tamit yërëm ñu nangu ñoo jàppale ci côté yëpp. surtout maman moom ñu fayam ndax xam nga ne jàngale metti na trop te surtout ma ñun jigéen ñi nga xam ne loo ñu wax tey bu subaa ñu fàtte ko mais teewul la ciy nekk soo su la joxoon dara tey nga fàtte ko soo ñëwaatee laaj ko ko dala koy joxewaat comme na mu wareewaat kon nag ñun moom amuñu fayam même si ni noonu xam nga ne ñaw gor metti na mais chaque jour dañuy jàppale ci lu baree baree bari di ñu conseiller di ñu defal lépp daal sant bi daal moom gisuma ci problème maman moom dañ koy ñaanal rek ndaxte kon kenn ku ne xam na ne jàngale metti na surtout jàngal ay magi jëm yoo xam ne si am ñoo xam ne déplacé war nañoo déplacé jàng ñii ñu ngi ci toolu suñ classe gi moom ba ñu waree jàng yàgg na te jànguñu mais mu mi ñuy jàppale daal ci lu baree baree bari kontaan nañ ci moom torop mu ñëwoon teewe si ndaje mi Djily Ngom di ki nga xam ni moom moo jàngal ma mama métier mi muy fisal mbégteem ak sagal gi nga xam ni élève am bi sagal na ko ko. di kontaan ak mbégte bi. ndax da di bis boo xam ne lu mënul ñàkk la ndax ki nga xam ne mooy Mama yàlla dafa dogal ñu yàgg lool mën naa ne lu bari jaar na ci man ndax yaakaar naa def nañ lu mat sept ans wala lu ko kon dèjà yàgg na ci man yàlla dogal nag am na fenn fu mu njëkkoon a jaar mais li ëpp ci man la ko eggale kon dèjà mën na maa wax ci moom lu bari te it xam naa ci moom lu bari mu nekk jigéen goo xam ne gu am jom la gu nangoo liggéey la ku nangoo sonn ci xam-xam la loola waral bis bi tey lii nag jomb ko mën naa am it lu ko ëpp te séntu naa ko fa ndax yàlla dogal na sonn ci liggéey mën na ko ndax yi ñu nekk ba nii ci lii lay yëngu luy jëmale kanamam liggéeyam lu koy avancé daanaka sax tërul lekk tërul naan ngir création ndax loolu bëgg-bëgg la ak gëm-gëm la loolu daal mën naa ko seede ci moom xam naa ko ci moom te it nga xam ne ñooy ay élève suñ ci li nga xam ne mi ngi leen ci woo dinañ dem bañ dégg leen fu kawe seen njort ndax liggéey bi moom ñun ñëpp ci am kenn judduwaale ko li ci rawale nit mooy bëgg ak gëm ak topp ndax am na xam-xam bi te yéene na leen ko mu nekkoon ndaje muris ñu mën cee ràññee teewaayub élèves yi parents yi xarit yi am di jàmm yi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo doon jàngandoo ak mama seede bi doon benn ñëpp yëkkati ay kàddu rafetlu initiative bi nga xam ni amal na ko ci bisub tey bii. nuyu xam ni moom moo jiite centre bi muy directrice bi di soxna mama Ndoye di jigéen di jàmbaar lool ci li wax. liggéey bi nga xam ne ci la nekk muy métier ñaw mihnatul riyaat métier ñaw nag lu baax la dafa nekk lu baax lu bari ay ngëneel lu bari ay tuyaaba. mu taxawal lii mu taxawal tey muy lu am solo mu nekk loo xamante ni nécessité la mën naa wax euh, pour toute la jeunesse sénégalaise mais fii ñu nekk Touba muy loo xamante ni daa am lu fi manqué muy liggéey surtout liggéey boo xamante ni pour jigéen ñi la mu taxawal li di former ay moroomu jigéenam mu nekk loo xam ne c'est très très très important parce que jigéen ñi soxla nañ ku leen taxawal jamono neexatul góor ñi sax dañu am problème pour satisfaire seen ay besoins personnels boo ci bëggee boole ñeneen ak ñeneen day xaw a métti léegi nag bu yàlla defee yu mel ni am ji jigéen ñi di góorgóorlu di dajale li ñu am mu bari mu néew di ñëw di inscrire ci école yu mel nii di def formation que ça soit couture wala travail à la main wala yu mel ne ñuy def teinture wala yu mel noonu c'est très important muy doon loo xamante ni dañ ciy jariñ non seulement seen bopp mais mën na leen amal beneen avenir boo xamante ni demee incha allah yàlla defee bañ am njaboot mën nañ cay jariñ jariñ seen njaboot. maman lii nga xam ni ubbi na ko élève la suñu élève la woon jóge fële ca centre formation culture Cheikh Abdou Karim Mbacké Makaarimul Axlaaq ñu nekk Touba Ndamaatu di jàmbaar ñu jëlaat ko ca centre ba muy liggéeyaat ak ñun te jëflante bu rafet lañ xam ci moom ak yar ak teggin ak wóolu boppam nit du gëm boppam dañuy wax nit day gëm nit du gëm boppam nit de wóolu boppam ba li ngay def foo taxaw nga wane sa bopp loolu moo nekk ci moom loolu lañ gis ci moom yàlla dogal mu ànd ak ki mbokki élève ay mbokki tailleuram ñu mu àndal ku ci mel ni seeni wala fàllu ak ñeneen ñu mel ni ñoom it di ay jàmbaar di ay góor ñoom it bëgg métier mi man ko man li ñuy def ñoo tax ñu ànd ñëw ubbi seen lii di koy liggéey tey ba mu toll fii mu toll kon tey bu defee exposition bi mu nekk lu am solo ku fi dugg gis fi ñaw yi fi nekk da nga xam ne ñii ñi ngi liggéey ñii ñi ngi ñëw te métier la moo xam ne ëllëg jigéen goo xamante ni tey dem nga sa kër da nga ci mën a sutura sa bopp. benn ba at képp la centre formation Lamp Fall Couture amagun waaye seenu njàmbaarte ak seenu xarañte journée porte ouverte bi ñu amal tey jii wane na ko ca ak fàttali ci suba amaloon nañu benn exposition ngir wone xarañte ak élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci centre bi waaye tamit ci ngoon gi amal nañu ab défilé ngir wone liggéey bi nga xam ni élèves yi nekk ci centre bi liggéey nañu ko ci at mi ñu génn.